jërë ngeen jëf sandarmay kolobaan yi am nañu gan démb observateur nañu Omar Sarr dafa gontoon waa section recherche bu biir gàddub kolobaan ñoo ko wolu woon démb ngir déglu ko ci lu soxal benn pàkk bu ñu jaay ca mbaaw yéene kay bi nañu lii waral Omar Sarr dem ca waaye Omar Sarr ba cinq heures di jot la dugg ca bureau sandarma ya ba cinq heures juróomi minute Omar Sarr génn na fa waalo waalo bi yàggu fa yàqu fa waalo waalo beneen bu yàqu lay dem rek moo di ay ma nekk ca kaso ba yéene kay yu bari ñu xëyandool enquête bokk ci direct info ak le quotidien populaire nañu ay dajong ak koofar ya mu ame woon ca CBAO yooyu ñu jël ñi ko ko jëlal lañ ci jublu moo di bëgg xam li ñu jël ñaata lay jar ki fi jëndoon kuddu ci juróom-ñaari junni yu teg ñeenti téeméer ak benn paak ci fukki junni yu manqué di Awa Ndiaye na mi ci libération journal bi nañu Awa bu sàgganul dana fekk Aïda Ndiongue ne jamono ji ñeenti tuuma mi ngi gàll ci ndoddam boole ci kit benn mandat boo xam ne juge d'instruction bi moo ko ko teg ñu teg suñuy gët ci le quotidien fekk fa doomi Abdoulaye Wade ji si njëli ci fitna le nañu mbirum fesman bi doxale noonu na bëggul Karim Wade dem ca kaso ba rakk ju jigéen ji di Sindiély Wade dem ca kaso ba dem gi Alioune Badara Cissé demoon fekki Macky Sall ngir ñu waxtaan ba réeroo gi amoon ci seen biir dakk Walfadjri ci la xëy yéenekaay bi dañu juboo googee am na lees waxul gu ca amul am na lenn loo xam ne waxuñu ko gaay gaay nañu daje ci l'observateur fekki fa Bara Gaye ma jiite woon UJTL te ñu tëbal ko jiital Toussaint Manga yéenekaay bi l'observateur a na ñu ko topp lu mu gàtt-gàtt am na fukki ndaw yu ànd ak moom ànd leen ak man ñu wutali lamb ji ak sunu lamb mi xëy dalal Birahim Ndiaye laaj ko li mu xam ci combat menuisier bi a tojal li tax Eumeu Sène a daan Modou Lo Eumeu ak tànk Modou bi mu yëkkati Birahim Ndiaye ne waa sunu lamb loolee Eumeu Sène jëm ci Modou Lo mënutoon a sotti waaye bu doon Balla Gaye du ca génne noonee génn naa ca loolee dem ci xew-xewu jamono delluwaat ci populaire yéenekaay bi xëy dikk ñun ci lu xew lu doy waar journal bi nañu kii jàllo la sant yéen la yóbboon ci benn fóotkat ngir mu fóoti ko waa ji am jafe-jafe ak fóotkat boobee dem di xuloo ak moom jëkkëri fóotkat bi wàll si ci waa ji di xeex ak moom ba far ko pattal